FG Partner Shipping, un outil gagnant-gagnant. FG Partner Shipping est une plateforme qui met en relation voyageurs et expéditeurs. Avec FG Partner Shipping, les particuliers vous transportent vos bagages à moindre coût. FG Partner Shipping vous facilite le transport de bagages grâce à un rayonnage d'environ 10 à 20 km de votre lieu d'habitation. Que vous soyez en France ou au Sénégal, si vous prévoyez un voyage et que vous avez de la place disponible vos valises, nous vous proposons de vendre cet espace à un expéditeur qui souhaite envoyer des bagages de la France vers la France, de la France vers le Sénégal, du Sénégal vers le Sénégal et du Sénégal vers la France. fg-partnershipping.com. Contact arobase fg-partnershipping.com. Avec FG Partnershipping, les particuliers vous transportent vos bagages à moindre coût. salaamaaleykum ami fidèle internaute de Dakar Buzz salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a bàyyi xel ci chaîne bu mag bi man Abdou Saliou comme ni ma koy defee saa ne euh, ki nga xamante ni man maa ko lakkal man maa ko saña a yee ci ay nelaw ne ko oustaz dama bëgg tey ñu waxtaan Ah, ah des fois ma ñëw gis madame Mbaye madame Mbaye nag sama gaan la moom bu ma fa gee sax eh, li muy njëkk a def mooy reetaan ndax xam nga xew ma maa fa nekkoon maa fa toj waaye yaa oustaz tey tey lii lan la nii lii doon bu doon rose dama ne rose bonbon nga sol waaye lii mauve bonbon la xam naa mauve la waaw sa mauve baax na grand baax na man nag man nag solo moom mhm. dama ko mën ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah abdu sant yàlla bu mel ni tiitaru sant ko des na mhm. nit buy sant yàlla day mel ni kuy tiitaru mhm. ndax iblis dafa ne woon yàlla sa jaam ñi dinaa leen def ay ingrat afa bi ma awayta nii laqudanna lahum siratakal mustaqim summa la atiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim wala tajidu aksaruhum ba kenn du la sant dem na ba ñàkk sant yàlla googu feeñ na mhm. da nga naan na nga def ñu wax naka xéewal yi dañu wax naka coono yi mhm. ndax bàyyi xel loolu bàyyi naa ci mhm. ay daw rek maa ngi ci vibe si di daw rek mais santoo yàlla mi la jox bët yi nga yeewuwaale mhm. santoo ko moom mi la jox jëmm ji nga yeewuwaale mhm. santoo ko moom mi la jox ruux bi nga yeewuwaale te bi ngay nelaw mboolem cëri yëpp yàlla benn bu ne téye na ko te bi mu ko téyee bi nga yeewoo joxaat na la ko am na koo xam ne bi mu juddoo la téye cëram ba nii mu toll yàlla delloowu ko ko mhm. am na ko judduwaale raam ba tey doxul am ko judduwaale nopp naqari ba tey déggul mhm. am ko judduwaale muuma ba tey waxul mhm. am ko judduwaale bët yu ñu tëj muy silmaxa ba tey xoolul mhm. ñooñu ñëpp ak yow yéen a bokk benn société bu fekkonte nit ñi mujjee juddu la yàlla muur seen bët dañuy wax ni kon ciment bi moo manqué mais am nañu la mag yow yàlla muur seen bët am ñu la mag yàlla téye seen gémmiñ am ñu la mag yàlla téye seen xel bis mu ne Abdou Saliou ngay dox ci mbedd daje koo xam ni seexluwul ngeen baal ma ñu tuddee ko dof muy tëdd ci ay mbalit te mu lay leer ni ci société bi la bokkoon am fi ndey am fi baay yooyu yëpp bu la ci yàlla génnee balak sa xel may la ngay jomb mhm. ngay xëy di lekk di naan mhm. saa yoo xëyee nit ni la na nga def da ko wax ni ko sant yàlla bay pooj macha allah lii da doon nuyoo nii wala nu mu doon demee ni laa mel damay nuyoo xam nga nag <laughs> Dakar Buzz fii la bës bi nekk waaw ah, fii la bi eh, eh. nuyoo bi am na solo yaa oustaz eh, yaa oustaz jamono ji yàq der ak xaw yi sutura doomu aadama dafa mel ni tulleeg man li ci réew mi nga fekk góor gu set wecc goo xamante ni tilimul taqul nit wi pande lépp loo xamante ni lu amoon ci moom la yaa oustaz loolu lan la ci lislaam wax abdu coowal mbedd mi yëpp ñi am jot la mhm. ñi amul jot kenn talu ko ci mhm. ñi war a xëy joxe dépense ak ñi war a xëy yore responsabilité tal nañu leneen lu dul di lay yàq der mhm. abdu yàlla mi yàlla te yàlla mi sunu yàlla moom ci boppam moo wax ak boppam yàlla mi yàlla tey sunu yàlla moom yàlla moo wax ak boppam mhm. ni man yàlla inna laaha naka yàlla hayyun ku bari kersa la mhm. yàlla moom mooy wax ak boppam ni man yàlla sittiirun ku bari sutura la mhm. abdu yàlla bu baree kersa bari sutura waaw maas ci jaamam boo xamante ni te yàlla ni yonent bi loo wax maa ko wax loo yonent bi ni man satara muslim man ku suturaal jullit satarahu llahu yàlla suturaal la abdu loo xoolee nit ba abdu ba jëwee ko ko balaa yow mal xiyaam yàlla dina lu juumloo ba nit ñi fekk ko ci yow. Mm-hmm. boo dee jiñ njaaloo boo dee jiñ nit sàcc boo dee jiiñ nit wax lu bon. senegal nag réew la mu chômage bi bari dë dëkk nag bu fa chômage bare yàq der mën faa bari. dégg naa dëgg. Abdou. Mm-hmm. ki nga yaakaar di Cheikhul Khadim. Mm-hmm. dafa am lu mu waxoon ci diggante wiri wiri ak maa yomba bañ ko dugalee ci benn néeg ba am ñuy fecc sàngara si takkar naa si am ko ni ko ñii li ñuy def ñaaw na. mu ni ki bind bu ko mënee muñ man jaam bi nu bind war naa koo mën a muñ mm-hmm. ki leen bind bu mënee muñ lii ñuy def man jaam bi nu bind war naa mën a muñ lii mm-hmm. te te réew mi dama foog ni feebaru coxor da leen a dal duñu yàq mukk ku nit ñi xamul dëgg la duñ tuumaal nit ñi xamul dañ lay bàyyi ba nga ne ci njoowaan ba njoowaan gi neex ñu toog di seetaan buñ munta muñ njoowaan gu neex gi mm-hmm. dinañ fexe ba ñi lay buuxal njoowaan gi ñu wax ak ñoom yàq seen der ngir seen loxo mën a feebal ci buux gi bu ñoo ñu dëgëree bopp xola buum nga la ñuy dagg. wallaahi. ngir rek na nga laal suuf. Mm-hmm. mais yàq der bi te yàlla xoolal ñi yàqoon der seen euh, der daaw nit ñi fàtte nañ leen. Mm-hmm. daawaati jéeg nit ñi fàtte nañ leen saa yoo xëyee Sénégal man 360 jours la. Mm-hmm. saa yoo xëyee am kaa bu bees. moo jaaxal ñëpp senegal boo ko gisul ci TikTok bi di ko gis ci Insta Instagram bi wala nga dem Facebook wala nga gis ko YouTube. lan la nit du maye lu mu amul. yonent bi nee na koo gis muy wax lu ñaaw daa iñaan koo gis muy yuli pande dafa iñaan mm-hmm. te yonent bi nee na ko iñaan du avancé mm-hmm. alxasoodu ko añaan laa yow soodu du avancé waaw kàddu yi leer na euh, yaa oustaz euh, fan yi ñu ngi dégg benn soi-disant oustaz euh, buñ ñi dafa violé vingt sept xale yu jigéen dafa mel ni loolu yëg nga ko wala dégg nga rumeur yi dégg naa rumeur bi waaye yar naa sama bopp ba xaw ma kan la yar naa sama bopp ba lijjantiwu ko nit ñi na nañu xam ne ustaas yi jàngale wuñ seen jikko li ci téere la ñuy jàngale nit ñi faw ñu xam loolu mm-hmm. abdu pourtant am na ustaas boo xam ne buy waaraata da ngay sentir ci moom réew mm-hmm. am na koo xam ne buy waaraata da ngay sentir ci moom yambar mm-hmm. am koo xam ne buy waaraata da ngay sentir ci moom sañ-sañ am koo xam ne buy waaraata da ngay sentir ci moom neex deret parce que xam-xam bi day méngoo ak jikko bi nga yor yow xaw ma na xam nga li ma wax comprendre naa bu baax ça veut dire que nit ki jikkoom ba pare bu yoree jikkoom ba pare nag xam-xam bi koy dab daf ciy waare mais du te day feeñ ci biir jikkoom mm-hmm. mais ki jàngi jàngaluñ ko jikko ju baax xam-xam lañ ko jàngal mm-hmm. boo demee ci laxdar yu du dégg ko mm-hmm. daf lay wax ni wayees ali na nga laaj al ulama boroom xam-xam mais boo demee bay roy wa yàqtadi na nga roy li mu tabiina ci ñi toppali sunnati rasul ci sunna yonent bi dégg nga lim la wax bu baax laxdar yu nee wayees ali boo demee bay laaj na laaj al ulama boroom xam-xam waxul nga roy ko mhm. waaye war yaxtadi boo demee bay roy na nga roy li mu tabiina li sunnati rasul ci ku teg tànkam ci sunna mhm. Mouhamed Mbaye day jàngale mhm. li muy jàngale bul ko xool ak jikkoom Seydil Xaaji Malik dafa ne alxaqu maqbulun walaw bil jaahili wala walaw bil kaafiri nee na dëgg moom dëgg la rek doonte yéefaray wax bu nit ki violé jikkoom la waxul ne li téere bi yor laa jàngale am na ñu daara bu daan jàngale di yor di tux poon ci biti yaay xale yi di dem marché romb def délégation seet si ko ni ko sunuy doom lañ la jox yaa ngi yàq xale ndax yaa ngi tux poon mu ni bi ngeen leen di indi xam-xam ngeen bëggoon ñi ngi ci biir daara ji maa ngi koy sol ci ñoom lii may def sama jikko la moo tax ma génn ci buntu kër gi di ko fi def mm-hmm. ma ndax dégg nga ma bu baax gisoo borom xam-xam bu saay-saay ba tàyyi ci réew mi mm-hmm. wala nga dégg da ngay dégg yenn saay nit tooñ amit siise mm-hmm. ma xool ko ni mu jàngee noonu la réewe noonu la saay-saaye pourtant xam-xam bi bokkul ak jikko ji dëgg wala déet. Mm-hmm. keneen noonu man bu may waxtaan damay ree li sax man chaque su may wax boo remarqué damay ree mm-hmm. li tax may ree mooy Sénégal di mu bëree ay nit yàlla lu ma la defal ba tax bu ma génnee fukki nit Sénégal ñett ñi dinañ ma xam. Mm-hmm. loolu bu ma koy xalaat damay ree yenn saa yi damay toog di di waxtaan ak yow di ree yàlla lu tax nga boole ma ci ñu yor mission yonent bi. ba mu mën a tuubal nit ci wax ku ma xamul gisuma ko. waaye topp mbaaxam bi mag ñi nettali topp jalooreem bi mag ñi nettali ba mën ko def ci dënn ku ko xamul. c'est très loolu laay ree barke alxuraan. Mhm. damay ree loolu. moo tax pour nit def ma lu ma naqari du yomb. du yomb. macha allah euh, kàddu yi am na solo ndax jamono bi ay nit a ngi euh, maanaam euh, yàq deru doomu adama pour am succès yàq deru doomu adama pour am ay vues mais yaa oustaz. pour am succès de yàq deru doomu aadama pour am buzz Abdou buzz ay fan lay def succès day sax ba yow. a xiyaam day sax ay fan lay def. Mhm. ana Binta Paye waaw mère bi dafay day moo ko yoroon na fi bës bi de ana xale bu jigéen bi dox la yampa ma fay da nga ko da nga ko déggat déedéet ñaata loolu mooy buzz mm-hmm. mais succès boo ko déggee tey ji mooy ku fi jaar def lu baax a roy mm-hmm. ku ma bàyyi ma bàyyi la mm-hmm. nañu bàyyi longoo neex na waaye koo bàyyi mu dem ak ki mbaggam ki may waxal nag mooy ki bokk ci xeetu yonent bi nabi nee na sil jàppal man xataaka ku la bàyyi wa ahsin na ngay rafetal ilaa man asaa ilayka ci ku ñaawal jëme ci yow mhm. waaye wa xolil xaq na ngay wax dëgg walaw ala nafsika doonte sa bakkan daf ciy yem dëgg na dëgg abdu mhm. yonent bi nee na sil jàppal man xataa ko ku bàyyi mhm. kon bul wax ni loo koo neex na waaye koo bàyyi mu dem mbaggam ñun ñuy waare nañ wax nit ñi mbaax mhm. wa axsin ngay rafetal ilaa man asaa ak ilayka ci koy ñaawal jëme ci yow gis nga saa yu nit def lu ñaaw nga koy delloo lu rafet yàlla xam ne ne day mujj yàlla wal xolam ba mu sopp la l'islam bi taxaw ki ko taxawal di yonente bi bu doon fayantoo du yegg si fii ku ko mu sa ku ko mus sa tooñ baal na la ah. wa maa arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin macha allah Eh, sama waxtaan ak moom li tax muy neex ndax eh, dañuy dañuy dañuy laal point yëpp eh, yaa oustaz mbir mi nga xamante ni moo fi jàll démb muy ci procès Sonko ak ki nga xamante ni moo di Adji Sarr ñu dégg fa ay kaddu yoo xamante ni peut-être démb gis nga statut yëpp mooy de mooy de 18 ans ay wax yu ñaaw wax joo xamante ni peut-être sénégalais yi ñenn ci sénégalais yi ñu ngi koy ñaawlu waaye li ko sénégalais yi ñaawlu ñaawlu tey jii mu am ci 14 personnes ak 3 yi nga xamante ñoo ci beesaat muy 17 personnes yoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan boobu ba dégguñu kenn kenn wax ci lan la yàlla wax ci ki nga xamante ni dafa yee fitna ak ki nga xamante ni moo ànd ak kooku yee fitna ba nit ñàkk ci bakkanam te coow li ba léegi kenn xamagul fan la wànne di mu njëkki ba tam Abdou maa la wax ni nabi ne sama waa ji kenn du moom al fitnatu yonent bi nee na al fitnatu fitna naa imatun ma ngay nelaw mhm. laanallaahu yàlla rëbb na man ay xazaha ku ko yee ay Abdou Abdou ndax ñun dinañu xalaat yowmal xiyaam 17 person yi taxaw yàlla ni lu leen rey. Mm-hmm. ñu ne ay njaalookat lañ wax ni ñoom ñoo ñu rey. wala lu leen rey ñu ni dañoo jiiñ ku góor ni dafa njaaloo ku jigéen ci loolu lañ doon wax ba rey leen ay waay nit ñi ndax ñu ngi xalaat loolu. yaakaar naa xalaatuñ ko de. Abdou ndax nit ñaa ngi xalaat yowmal xiyaam 17 personnes ku leen rey ñu ne dañoo waxoon ni Sonko moo violé aji saar te réew mi nag ñaare fi am wax dëgg te yàlla tax mbaa nga bañ wax dëgg. xool ku la jaajëfal wala ku la may xaalis mhm. Abdou lu la fi waay may diggante daaw ak ren am na foo dugal mhm. kon waxulil xaq walaw ala nafsika góor na wax dëgg donte bakkanam dafa yam même yowmal xiyaam bari na ñun ñii di wax ci média yi te ñu ñuy woowee ay oustaz ñoo xam ne yowmal xiyaam dinañu la yokk yàlla ndax dërëm bu ñu teg suñu loxo ba ñemetuñu wax dëggu yàlla ji mhm. ñun bu yowmal xiyaamee diine ah, xam dinañu mere l'islam dinañu mere ñun bu ñu wax waruñoo xool ku ñu ger ak ku ñu gerul yonent bi dafa wax ci xadis ni man raa ku gis min kum ci yéen mun karan lu ñu sib fal yu wu na ko dindi bi yaddihi ci loxoom dem di ci dindi di ci dindi ba mu deñ fa in lam yastati bu mënewul loxo bi jotewu ko fa bi lisaanihi na koy wax ba ñëpp di ko dégg fa in lam yastati bu tàppetee ba mënu ko fa bi qalbihi na ko naqarlu ci xolam mais réew mii di senegal réew mu ñëpp a ngi dem ñetti at ñu topp ci ay waxi taat ñetti at ay gor di ci dee. Mm-hmm. ay mag na ci réew mi rusuñu démb ku seetaan télé jéppi nga ku nekkoon tribunal tey wax ci loolu. Mm-hmm. ma ne démb ku seetaan télé laa wax jéppi nga ku nekkoon tribunal tey wax ci loolu damay wax ni nañu àtte ñaari. Mm-hmm. bu Adji nekkee ci dëgg ku ko jàppale yàlla na nga am doom ju mel ne Adji Sarr bu Sonko nekkee ci dëgg te ñi Sonko nekk ci dëgg ku ko jàppale yàlla na am doom ju ni Sonko ci barke yonent bi mu jeex. wala <laughs> déggoo ma mais xam nga euh, yow saas euh, li nga wax lu am importance la euh, mais tey ñu ni ñenn ci sénégalais yi wala ñenn ñi nga xamante ni ñooy défendre Adji Sarr ñu ni dañoo am ay vidéo yoo xamante ni Ousmane moom moo ci nekk démb ma tëdd sama biir néeg man dong mën ak yàlla sunu borom ma ñeewantal ko yërmande gi ma am ci moom démb mosuma ko am mu doon loo xamante ni tey jii est-ce que ak njabootam bu fekkee ne loolu ñuy wax am na ak njabootam duñ ci jëlee euh, dépression ay soxnaam est-ce que duñu dem abandonné ko est-ce que yooyu yëpp sénégalais ñu ngi koy bàyyi xel ci koo xamante ni doomi réew mi la ca ñaari doomi réew mi ñoo ko seex Abdou gis nga nag gis nga gis nga gis nga gis nga réew mi kenn teguwul ci yoon boo bëggee dégg dëgg mm-hmm. Sonko teguwul ci yoon Adji Sarr tegul ci yoon ñii àtte sama yoon ci ndax jaar jàngoma lu waate léegi Sénégal comme Lido mm-hmm. ku génn ñu jàpp la mm-hmm. ñëpp la ñuy déglu fi mu toll nii mais damay wax ni la pour ma wax ni la aji saar gul ci yoon mhm. mooy la muy liggéey massage la la doon def pour fajaate mhm. wala nangam bu dee massage pour fajaate la war nañ koo topp ci yoon moom mhm. comme niñ def euh, euh, euh, sëñ Saliou bi nekk te seen TV aji saar bu fekkente ni massage la doon def pour fajaate war nañ koo laaj ana kartam waaw ndax am na ci am am na ci profession am na ci diplôme bu dee amul dañ cee war a wax ndey xadi këram est-ce que loolu tamit war nañ ko faa def. Mhm. bu dee tamit loi daf koy téye Sonko i tamit lan la fay def jamonoy Covid. moom tamit ñu laaj ko lan la fa doon def ak ndax amoon na carte génn heure boobu bu fekkente ni faju la waroon a def am na médecin yu maîtriser loolu bu loolu jàllee ba noppi nag ñu ñëw ci senegal mhm. Sénégal li may gis man ci li ñu li am yëpp mooy nuñ ko xor ñoñole ba dugal ko ci kaaf lu nuy wër. Mhm. bu dee dëgg parce que ñaata nit lañ fi jàpp ci faux billet caméra leen ci biir oto ñuy saraxu di baalu fan la mujj parce que dañoo bokk ci ci ci état bokkuñu ci opposant wala déet mhm. buñ doon opposant ñu ngi ci biir waxal rek bu dee dëgg dëgg la caméra wuñ leen mhm. wane leen Sénégal boo nekkee ci état bi da ngay nekk sa stabilité boo nekkul ci état man de bi ma déggee benn maire buy jaay beñe bu ñu jàpp Malika barki démb xaw ma Kër Massar tuuta des ma xam yënga loolu ay kii la woon rek gars ko doon wax noonu rek amul ah, ah mais damaa ne woon lii de bu amee mhm. noo ma xam ni Sénégal nag neex na léegi gis nga bu jëkk bu njëkk ba kun musaan jàpp nit ñi dañu stressé mais léegi dañoo dañoo dañoo oyofal jàpp-jàpp ba nit ñi bu ñu leen jàppee xool police dafa mu euh, kaso yaa neex parce que soppe yaa daje waaw soppe yaa fa daje mais yaa oustaz euh, ci ci peut-être ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoom ñu ci bari lañ leen a jàpp xotti war ma li nga xamante ni moo di moo di institution yi lañ leen jàppe ñu ci bari parce que dañuy toog di saaga état toog di saaga ñi nga xamante ni ñoo di kilifa yi toog di saaga lu suñuy institution mais loolu est-ce que war na ñooñu dañ leen a war a jàpp par force léegi rek man ngi ko sama daju baay bi ma ne leen gis nga président at jikko ji mu yor mooy jikko ji yàlla yor boo julee doo am tuyaaba mm-hmm. boo julee doo am bàkkaar mm-hmm. mooy loolu boo tooñee président am bàkkaar mooy tëj gi boo ko neexalee ñu ñu ñu defal la mbaax mbaax yàlla sax noonu la mel mm-hmm. yàlla rek noon la mel fa innahu la yazillu man waa waalayta wala yaizu man aadayta dama boo def xunutu fajar loolu lay firi fa innahu moom yàlla laa la yazillu du teddal mukk man aadayta ku ko noonu wala yaizu du teral mukk man aadayta waaw léegi nag président de la république damay wax ne am na aaya boo xam ne ñu ngi koy jàng jullit ñi dégg nañ aaya bi waaye nanguwun ko muy nguur yàllaa koy joxe mm-hmm. yàllaa ko jox président de la république mu yor ko man ak lu mën a xew nee naa leen xaw ma lu xew de waaye président de la république daal ko yaru la te yéene naa ko réew mi waaw man Abdou mm-hmm. faralu ma kenn bu far doon am ba mënta ñàkk bugaan mi ma kenn xamul mu jël ma ci teleem teg mm-hmm. di ma fay weer te yaa ngi ni lii ma lay defal moom lay defal Bougane te fayoo ma mhm. te moom mu may fay weer wala déet mhm. bu far doon am Bougane lay faral réew mi nañu xam ne ku ne sa intérêt nga bëgg mhm. man bu may far Bougane laay dem farali mais dama wax ni la pour mu leer président de la république ci yar laa gis ci moom noppi laa gis ci moom quant defante ak ñàkk defante Abdou kenn nekkul sa kër nelaw yow rek ñu jël la yóbbu prison dëgg la koo gis ñu jàpp am na cause bu tax bi ci des mooy damay wax ni ku xool sa ginnaaw amoo cës laay lu dëgër wax ju bari waru la dégg naa dëgg. asa gis nga euh, Abdou Salif bu la leeree ne amoo sëriñ bu la taxaw senegal am na ñoo xam ne dañoo am sëriñ spécial ku leen tëj di nga leen génne seen sëriñ tant que génnuñ duñu am jàmm. mais boo geesoo sa ginnaaw amoo sëriñ bu la bu am doole. bu la mën a bàyyi xel bu la mën a kaasal. Mm-hmm. Abdou mooy may wax rek Sénégal ku amul xaalis da ngaa seetaan si. réew mi ñu ne <laughs> da ngaa ñëw da ngaa ñëw rek assister ci assister ci kase <laughs> kon tey jii ñi ñu téye ñëpp mm-hmm. Sénégal man benn politicien ma sol daal taxaw sama buntu kër di la seetaan seetaan rek laa la wax. Mhm. waxatuma la ak ba di la faral parce que politicien ci kaw ba ci suuf ñëppay wor man ñi ma jot xam ci politicien ñëpp gisuma ko ci dëgg. Mhm. bi mooy grand plateau bi doon am ci koor gi. ña ci ma ñii de bu fekkente ni réew mi ñii ñooy xalaat yor ko ëllëg Sénégal ñëpp dinañ ko parce que ñi ma gis ñuy wax ñëpp gisuma ci ñoom yar te wax naa ko. Mhm. direct grand plateau ma ni ñi ay xale lañu. yaruwuñu lu leen neex la ñuy wax réew doo ko jox xale danga nga jox ko am responsabilité. Mhm. Abdou ñun ñaa ngi rawante ci responsabilité mais doo gis ay ndaw ndaw rek jël réew mi bëgg koo teg seen loxo xam nga état nu mu toll. xam nga réew nu mu toll xam nga nit ñi nit ñi dañuy réew xam-xam kasa yoru ko de. wallaahi réew da ngay mel ni président Ablaye Wade. Mhm. da ngay mat kilifa da ngay mën a njaboote. lu bari ngay sëgg muy jàlla bari na luy xew sa kër boo ko lëj ma tee tas sa kër da ngay dëgg sa tànk rek noppi président noonu la meloon. mais kii fi ne yàlla ko fi teg mhm. nañ ko bàyyi mu doxal bu dee aaye boobu ñu julli ñi gëm nañ ko qul illahuma malikal mulki tuutil mulka man tasaa wa tuizzu man tasaa wa tuzillu man tasaa bi yadikal xayru bu dee gëm nañ ko dëgg la la la rey suñu bopp Sénégal bu ko bu ko xolal ki gën a tabe ci àdduna bi bu yoroon Sénégal te liggéeyoo doo am mhm. ki gën a bon ci àdduna bi bu yoroon Sénégal te nga am jom di liggéey di nga am loo dunde nit ñi bu ñu xëttoo kii yor réew mi nañ xëttoo lu ñu liggéey pour am lu ñu sàmmee sunu ngor macha Euh, kàddu yi rafet na yaa oustaz lii fee la boo xamante ni euh, mi ngi xew ci réew mi mooy diryanke yi nga xamante ni dañoo yor seen alal euh, ñenn ñi am borom kër ñenn ñi amuñu borom kër xale yu ndaw yi nga xamante ni entraîné nañ ba ceene ñoom la ñuy jël di leen fat ci appartement yi yaa oustaz jamono toll na fa nga xamante ni fi mu toll ni borom kër yi yu ci baree bari sax maanaam dañoo nekk ak seen soxna yi rek waaye wóoluwuñ leen ah le day xamal naa la ko jigéen de booy sëy moom ba wóolutoo ko bàyyi ko mu dem te dinaa la xamal dara ci biir wax ji mooy góor bu sib sonee jabaram yaa quelque chose. yaa quelque chose. te góor ñi ñàkk wóolu seen jabar yëpp mooy góor ñi dëng parce que dañuy xam li ci biti <laughs> Abdou alaaji góor góor fi gis wóolu jabaram am na lu mu xam moom ci boppam lu muy dund ak keneen loo xam ne bañ na jabaram yegg ci mhm. Abdou waaye xamul xamu ko am na góor ñoo xamante ne xamuñu caaxaan parce que rëy na ci seen mbon ngi rëy na ci seen nopp ba jomb nañ koo def moo tax njorte wuñ ko doomu aadama mais ñoom bu ñu amee jubadi am di doxaan jabaru jàmbur të mhm. parce que dañ euh, conseil yi ñuy waxanteeg jabaru jàmbur yaa ngi efface message yi mun la maa ngi effacé sa jabar bu sëggee ci téléphone da ngay foog ni la ngay wax ak jabaru jàmbur moom la sa jabar di def dëgg la koo fi gis laalo mhm. mu naan ja buy fiire jabaram ñenn ñi bokk ñenn ñi mhm. ñenn ñi dañ koy def dañ koy def ñeneen ñi si des ba ñuy takk seen jabar xamoon nañ ci moom të démb të xamoon démb moom la leen seen mbëggeel bañoon wan ba ñu dugg bi ñu duggee ba mbëggeel mi commencé di ruus ñu bàyyiwaat xel tëggi te olof mooy wax ne ndox du bàyyi yoon ahankañ ndox ak mën a bàyyi yoonam ndox du bàyyi yoon ahankañ ndox ak mën a bàyyi yoonam buñ ko defaree ba mu jekk hmm. am fu ñu ko war a jaar par force ndox bàyyi yoonam mais problème bi mooy bu ma gisee góor bu yëkkati poids fii hmm. parce que lan dafa am jigéen ju la war a fay yaa ñàkk fayda jigéen ñi tamit yor ay oto est-ce que xam nga yàggul ma soxla defukaayu xaalis. Mm-hmm. pour ma bañ a publicité. Mm-hmm. may dox di dem. billaahi wallaahi tallaahi ak sama cofeel ci yonent bi jigéen daw ba toll ak otoom ni ma oustaz Mouhamed Mbaye hee ma siggi xam na ma wala xamuma. xam na la yow mii laa nopp. nii la ko waxee. barke alxuraanu karim. Eh, ba ma xool ko kat kat boo xam ne dàq na sama bas fukk tàq may nii mu dab maak hmm? ma yow mii laa nopp. réew mi yàqu na ma reetaan bay bëgg a dee man ko déedéet waay mu ne ma man moom naa la gis télé rek nga reetaan <laughs> wala foo jëm man ko noonu fii laay dugg daa am lu may jël rek kay muy baal man ko noonu amul problème jox ko sa numéro ma jox ko sama numéro mu bippe ma damaa xamatul sax faf wallaahi yàlla mooy sama seede ak mhm. yonent bi xamatuma lu ma abrégé ci numéro te pourtant am na koo xam ne chaque jour mun la oustaz boo gisee beneen cas bu dul cas social may ma ko démb rek nit wax na ma ko yenn saa yi nga taxaw buntu seen TV nit ñëw di la seet mhm. juyoog yow ñu la diw ñëw na fi nga jox la numéro nga jël ko bu la soxlaa kilifa lay doon. Mhm. wala mu bëgg la wala nangam yaay xool nag bu boobaa. arrangé na la nga dugg arrangé wala nga bàyyi. Ah, kon li xale yi di def nii eh, gars yi ñu ngi koy def des fois ne la man utal ma koo xamante ne du cas social. ab du góor ñi ñoo gën a bëgg lu yomb. wuti ah yow mi da ngaa war cas social. yow mi tey boo demoon bay takk koo bëgganteel lool benn dëriyanke ni mbas ak kaat kaatam abdu dugal la ci kilim bi ëpp la ñaari minutes nga ne gars yi jiitu leen ma maa ngi topp seen ginnaaw. mun la Abdou dama lay topp sa sikkim bi may dajji maa ngi fàttaliku théâtre nangam guddi googu nelawu ma am nga soxna wala amoo soxna la de amaguma de <laughs> rek man li ma neex am nga koy bëgg wala am ko ne ah man liñ ma trompé daa bari fi mu toll nii kay talu ma wala mbëggeel di koy lébu pire nga yor foofu loo <laughs> onze rek nga yor dag <laughs> ñun ñëpp ay Abdou waay waay Abdou waay nañu bàyyi waay réew mi de mhm. toj na toj boo xam ne boo dëgërulul sa pas-pas da ngay ndërmeelu Mhm. parce que li ngay recevoir ci message da ngay yéemu ci te ñiy wax ak yow ñi dañu ne ci buum ñi nangam ñi nangam ñi nangam mais boo xoolee fii nga jëm ni waxoon nañ la ni li ma Seex Saar naan ma sëgg rek léppay traversé sa kanam mhm. mais del sëgg rek dafa mel ni lido faw nga daw ba omee ji mais bu dee lu xew rek nga génn nga yëndu doo dem Abdou da sax ñu kong la yow wax naa la ko yow laa may yow privilège la wax heure bu la neex nga fekk ma fi ñu def émission. Mm-hmm. mais musuñoo daje man ak yow. wallaahi musuñoo daje. musoo mm-hmm. maa dégg kër kilifa man du ma fréquenté kër kilifa du ma fréquenté bureau du ma def lenn man daal yonent bi sama kër lu ma waaye di terale sama téléphone lay jaar man dama taayel sax. dama fréquenté kenn. macha allah euh, waxtaan nañ ci wàllum xeesal waxtaan ci wàllum euh, li nga xamante ni moo di euh, yenn astuce yi nga xamante ni moom la xale yi di utiliser mais yow saas fan yi xale yu jigéen yaa ngi bëgg a ak produit yi nga xamante ni moom la ñuy jël yi nga xamante ni maanaam day yokk seen seen seen dënn yi nga xamante ni day yokk seen hanche waaye nga xamante ni day yokk seen mu doon loo xamante ni gis naa ci ñu ci loru yow saas lan la yonent bi waxoon bu ñu demee ba nit. ni ko sunu borom bindee doyu ko mu bëgg koo yokk. len daal dinaa la ko xamal ruux gu mhm. am na jëmm ju muy àndal. ruux gu am na jëmm ju muy àndal la yàlla waxoon yaa ayyuhal insaanu ma arraka bi rabbikal karimi lazi xalaqaka yow doomu aadama lu xew teeyal dalal man yàlla maay wax ak yow maa la bind. fa sawaaka maa la bind bind bu yem fa addalaka fii ay suuratin maa sha'araka baka man yàlla maay xool melokaan bu ma neex ma bindee la ko. nee mhm. na yàlla abdu ruux gu am na jëmm ju mu war a àndal mhm. yàlla la neex mu ni la nii ngay toll boo ne yàlla nii ma bëgg a toll neexuma yàlla génne loxoom ci lim la defal mhm. abdu yàlla mi la xëy est-ce que mën nga maa wax ban jour nga mag toll nii nga toll say photo yi daawaati jéeg moo lay wan ni màgg nga léegi mhm. say photo 2001 moo lay wan ni grand nga léegi mais kenn du wax ni 2002 daal nii laa toll 2003 nii laa toll yàlla yi ko itteel bët du ci tege lu nit di yëg lay doon muy tàngoor wi da koy yëg waaye doo ko gis seddaay bi da nga ko yëg waaye doo ko gis wala déet dëgg la sa njoolaay sa taxawaay doo mës a sentir si di di di metti nga ne wu yaay maa ngi màgg mhm. da ngay xëy rek gis sa bopp ni nga toll kenn ku ne ci ñun da ngaa xëy ni nga toll da ngay xëy rek dama xëy rek xool sama papa mu màgget mhm. démb rek maa ngi ko ma xool sama yaay ma ngi noonu xool photoom après sama yaram daw bi ma duggee sama to naa lu yàgg may xool nii ma ni sama yaay day mu ngi màgget nag sama yaay mu ngi màgget xool photoom démb bii. Mhm. nii ma tooñante ak moom. Mhm. ba dugg ci biir sama oto toog ma ne ah sama yaay màgget na tey xalaataat naa ko bi ñuy sama yaay tey la simmi. Mhm. may waxtaan ak sama mag ñeeg nongam nangam ba ci yàgg may xool Ahmada sama doom bi ma ni tolloon naa fii mu toll di bajantu mais ñaan naa yàlla moom itamit ni ma toogee nii sama dëju baay di ko ñaanal te ñu ëpp Sénégal di ma sago mhm. te naan damaa yaru te dañ ko njort ci man rek yàlla na sama doom ëppale loolu ci man macha allah Abdou man bëgguma nit ñi mhm. a yaru mhm. commencé di waxee sañ-sañ di fréquenté yéen nit ñi lu ñëw ma dugg ci chaque jour nit ñi di ma gis mais loolu bës la du succès succès mooy ku la xool xool ci yow yar mhm. ku la xool du bëgg doomam mel ni moom mais ku bàyyiwul yokk ku bàyyiwul wàññi doo jug hôpital dégguma li nga ku bàyyiwul yokk ak ku bàyyiwul mhm. xol bu ne xol bu ne am na jëmm ju muy àndal xol bu ne am na jëmm ju muy àndal ma la dara mhm. moteuru camion xaj na ci 4x4 laa ngi noonu jeex na loolaa lay leeral la <laughs> loolu de yaakaar naa ne xale xool bu ne am <laughs> na